bismillahi rahmaani rahim mbokk taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara fii nu nekk nag mooy mooy mooy Lambaréné Lambaréné bërëb la bu am solo ci tukkib sëriñ bi ndax sëriñ bi mën nañ ne fi la mujje ndax bi mu ñëwee bajaar jaar Libreville ba ñu yóbbu ko Mayomba mu def fa lu xaw a jege juróomi at na mu ko waxe ginnaaw ba fii lañ ko indi fi la mottalee def fi ñaari at ak ay weer Eh, ginnaaw ba nag lañ ko fi doog a jële yóbbuwaat ko Sénégal fii nag sëriñ bi tuddal na ko boom nett nett li ne lim fi daj ci ay coona lu dul ruugu génn nee na lim fi daje ko gën a metti kon sonn na fi ñaareel ba itam lu bari bari xew xew na fi lu bari xew na fi ci diggam tubaab yi wax nañ ne dex gii nu nu dendal fi la daa jàpp se fi la daa itam yeesloo jële nañ ca mag ña itam ñu wax ne yére yére yére yi boppam yi moo ko daa fóotal boppam te fii la ko daa da ko daa fóot see waaye loola tawfeex da caa am joo xam ne dañ ci yëgee sutura suñ sukk suñ borom sukk suñ borom defal suñ tuwaam suñ suñ borom da ko suturaal ci lépp ba tax na wax na ne yére mi bu mosaa ñëw di ko su di ko yeesal fii dëkk bépp maanaam dañuy dañuy nelawandoo kenn du ñëw fii itam ci bërëb bi ba mu def la muy def ba noppi loolu mooy bu mosaa di yeesal yére yooyee fii ci làmbar na itam mën nañ ne fi la jote woon ak ak ak ki nga xam ne moo ko fekk muy ñaan mu teg xaalis ba ci loxo ya sëñ bi wettax ko ko ba mu ko ko wettaxee mu dal ci mu dal ci ci ci jëba ba deretam génn loolu nag sëñ bi sax jublu koo na xaañ waaye da koo sànni rek ndax da ko fekk mu tàllal loxoom mu teg ko ci loxo ba xaalis ba fekk ba liñ ko daa jox ci weer wi lañ ko dajaleel bam ba mu bari ba mu ko tegee ci loxo bi nag fekk muy ñaan di déyaaleeg suñu borom boole ca bëgg koo wax ay wax na xamal ko ne ko li ngay ñaan nag moom nangu na nangam nangam ci la ko sëñ bi wettax bi mu ko sànnee nag la dal ci jëb waa dal di toj jëba xar ko deret di génn waaja nag dafa eh, kalaami sëriñ bi ñu waroon leen atte ca njole njole daa mel ne sor sorul fii lool mi ngoog loola la ca xew mooy sëñ moom dem na ba àgg waaye waa ji moom ci yoon wi lañ mujj xam ci moom dara daa am lu ko këf wala boog kenn xamu dal fu mu mujj loolu it fii la xew woon euh, ki nga xam ne moom la sëñ Basiru nett lii tam wax ne dafa ñëw yor jeeseem di ko wëndeel ci kanam sëñ bi xamul ko ne man dey mboolem wëlli yi fi ñëw ñëpp sama baay moo leen moo leen faat ne nag ba ma moytuut ji ci laa ci ci laa ci laa lay ci waaye dañ sëñ bi da ko ne ko na xam ne ma sa baay doo sa yow te man du ma wëlli sa baay daa faat ay ba lox ji jës ji wadd loolu fii la xew woon eh, nit ñi fi dëkk itam ñooy waa Galwaa fii itam sëñ bi wax na ne fii la àggee ci sunu boroom dëgg dëgg àgg lillahi qad wasaltu inda Galwaa loolu fii la fii la fii la fii la ko waxee fii itam mboole may yu bari ci tukki bi fii la ko bindee ci mujj gi mujj gi moom leeral na lu ko suñu borom taw feexal nee na fii laa nekke shahid boo xam ni damay dox ci kaw suuf ba pare maanaam faatu ci ba ci baatin nga xam ne bakkanam fii la teqale koog moom ruuxu kese moo moo doon dox moo dellu Tuuba moo tax kooke ruux nag du faatu moo taxoon mu wax ne maxaa mamaatan xad naxan nufuusa kon fii moom bërëb bu am solo la ci tukkib sëriñ bi waaw wàccuwaay bi rek nga xam ne ci nga xam ne farlu sëriñ bi te sëriñ Tuubaa fi ne waxtu julli wu ne ak njàppam mësta julli ñaari waxtu ci me ci menn njàpp ci menn njàpp te fii la daa jàpp see fii la daa jàpp see fii nag sëriñ waa moom xam nga fu masanee rek moom moom waxtu ne taalif yi mu daa taalif moom mësta dog ba mu nekkee fa Mayomba wax na ne taalif na fa ay taalif yoo xam ni ak ay xasaayit yoo xam ni diggam ak boromam la ak diggam ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom daa wërta génn nga xam ne moom foofee la yam wax na fa itam téere boo xam ni nee na dara mësta mel ni moom ci barkeel ak ci leer gu ca ne ak dajale gum dajale zikru zakirina ak shukru shakirina ak jihaadul mujahidina loole wax na ko fa maa yomb nga xam ne moom waxtu ne moom daawut eh, dañ di bind ak a tagg yonente bi sallallahu alayhi wa ndax fi ne yoon wi yëpp sabab bi mooy mooy mooy liggéeyal gi muy liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax ñu génne ko réew ma wax ne qusuur yi xalat wal ahlu an ni tafarraqat li madxi alladi anhu lmadixu qasiru tagg googu yi muy tagg yonente bi sallallahu alayhi nag moom bor la ko defoon madxu nabiyil Moustapha kalaam yi aw aw aw kama qaala radiyallahu anhu maanaam wax ne moom jëm waxam moom tagg yonte bi da cee mënta génn ba tax na bi mu nekkee fii itam loolu liggéey boobee la wéyal xam ngeen ne eh, lu bari ci lim taalifoon njëkk mu ñëw ci géej gi da ko taalifaat mu wahibu moom am na wuute ci fan la ko defee waaye wax na ca ne moom daa xaaj at mi ñaari xaaj juróom benn weer yi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom eh, benn weer yi muy julli ci moom sallallahu alayhi fii nag ngir ràññatle xasida yi mu fi yi mu fi tagge moom ak yi mu fi taalifee yooyu du yomb xam naa ndax lim bindal boobam jësaw sa kun eh, dafa njëkk a gàttal yoon wi ba mu àgg mu tàmbali nag di ko di ko yaatalaat ak di ko ca ak di ko détaillé far nag téere ba yem fa nga xam ne àggut loolu mooy jafe-jafe bi fi ne la mu wax ci maa yomb leerlu ko fii waaye wax nañ ne wala xad karam naa dégg nga fii la ko taalifee ak lu mel ne rum naa ak lu mel ne euh, wajjahtu lillahi wajhi wa huwa yubqini kooku it wax nañ ne fii la ko taalifee ak yeneen i xasida yoo xam ni moom it fii la fii la fii la ko taalifee